gis nañ leen fi Moussa Meta di Fabri Metal tay gis Fabri Metal fer bi ñu soxla ci rew mi ñu ngi koy def donc tay euh président Macky Sall euh, mi ngi instruire gouvernement bi wax leen ne leen nañ def tout ba nga xamné euh, chantier yi nga xamné dor door nañ ko ñu agalé ko mais également ñu respecté ko ci ci temps bi euh, malgré pandémie bi parce que su ngeen xoolee travaux état yi dañoo soxla approvisionnement en fer mais également ak ak ak particulier yi tey nag ñu ñëwoon di xool mais bi ñu fi vraiment

alhamdulilah matal nga yàlla yàlla matalal la di la xamal ne li ma la waxoon léegi rek industrie Sénégal bu amul problème amul ndax jafeñ-jafeñ bi comme ni ko Modou man waxee léegi rek la maanaam kenn prévoiru ko woon tey jii wax naa ko benn bëkk démb xam nga sa waa nekk ci Louga war yi jee Louga mun tey ñibbisi

Nous euh, monsieur le ministre son excellence le président Macky Sall nous nous pour nous doubler ou tripler nos capacités di jëm kanam pour ajouter euh, Fabri Metal ay et c'est 100 sénégalais nous employons aujourd'hui 400 personnes emploi direct en sénégalais en locaux et nous sommes capables de doubler voire tripler les employés à condition que l'État nous accompagne pour qu'on puisse aussi euh, développer nos activités.